xula aadami yen xilafatun malak di dellu di nuyu di dellu di nuyu eh, suñu wéyjur di xalif général Thiénaba eh, Baye Assane Seck di ko ñaanal yàlla si mission boobu ko suñu borom jox suñu borom kantanal ko ba li mu bëgg ci eh, si yon bi suñu borom defal ko lu kawe di sàkku si moom si turu son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Faye mu ñaanal réew mi jam parce que defe naa préoccupation bi gën a mag pour kilifa yi mooy jàmm parce que mënuñu tabax dara mënuñu construire dara si pëccoxo si jam lañ mën a defee lépp ñu ngi sàkku si moom ak njaboot gi yëpp ñu ñaanal réew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président yi mu am ci réew mi moo gouvernement bi nga xam ne premier ministre moo ko jiite suñu borom may leen lu kawe seen jox parce que en réalité ni ko benn mag di waxee ñaanal leen mooy ñaanal suñu bopp parce que lépp lu ñu fi réaliser si lu baax ah, pour intérêt population yi la parce que ñoom li ñu comme ñoom ni ñu ko xamee daanaka passage dañ fi def dañuy ñëw rek romb lépp luñ fi def fi lañ koy bàyyi si lu baax kon kooku nga xam ne moom mooy yor euh, sa destin man nañ ko wax danga ko war a ñaanal yàlla mu réussir parce que réussite am en réalité mooy suñu réussite ñu ñëpp parce que bu réalisation muy tali muy laneen nu mënti doon buñ ko defee pour population yi la kon vraiment ñu ngi saku si sëñ bi xalifa général ak njabooti ma Amé Ndack Seck yëpp ñu ñaanal euh, président de la république li nga xam ne moom la bëgg si réew mi suñu borom defal ko lu kawe njortam gannaaw bañ leen ñaanalee kilifa diine yéen yàlla yàggal leen si eh, doolu leen wér doolu leen sutura parce que lii ñu fi dajale tey comme leen nga xam ne muy cent quarante cinquième édition gàmmu maam Amary Ndack Seck pour ñu ko xamul yaakaar naa amatul sax ku ko xamul ci réew mi mar ci bitim réew maam Amary Ndack Seck ñëpp xam nañ li mu def si diine gi ñëpp xam nañ

préoccupation yi dan nañ wax ne bi ci gën a euh, jàmp te gën a yitteel comité d'organisation bi muy wàllu ndox loolu moom il faut ñu wax ko te il faut ñu taxaw ci parce que ba tey dafa am problème ndox depuis ay at li ñuy jël yëpp ay mesures conjoncturelles la eh, dañuy def tey changé pompe fii def di ëllëg mais état Sénégal daaw entreprendre na nañ ne benn décision boo xam ne bii ne jëloon na benn décision boo xam ne mu wala ñu entendre ay travaux construction d'un nouveau forage d'une très grande capacité forage boo xam ne bi nañ début bi dina am au moins deux cent mètres cubes à l'heure ak château d'eau boo xam ne dina am capacité ba cinq cent mètres cubes à l'heure forage boobu bu ñu ko réalisé woon problème mu ndoxu Thiénaba serait derrière nous malheureusement daaw ba ko commencé c'était pratiquement à l'approche du Gamou on avait reçu des promesses fermes venant de l'OFOR que dinañ sax mën a injecté forage bu bees bi si biir réseau bi en attendant château d'eau bi di di di di pare mais malheureusement booba tey liggéey baa ngi taxaw te xamuñu lan moo ko taxawal te loolu vraiment préoccupation le comité d'organisation comité préoccupation la Serigne bi mooy ñu ngi vraiment interpellé ñi nga xam ne su ñoom la nekk vraiment ñu jël toutes les diligences nécessaires pour forage boobu mën a pare à défaut lu bon bon ñu mën ko injecté sur réseau bi en attendant leneen yi ngir ndax château de ak yow di yegg point pratiquement euh, euh, passé nañ en revue hein, relativement à la sécurité hein, des pèlerins et autres parce que nous wax la sécurisation hein, les autres points également liés à la santé et autres comités d'organisation aussi il faut le reconnaître am une satisfaction sur l'ensemble des services yi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyandoo ñoom ak gàmmu Hein, en passant par la santé, la sécurité, l'élevage, service d'hygiène. Nous, avons pour comité satisfaction également nous, na mais comité de aussi parce que depuis quelques années au moins 5 6 ans sentiratuñu une wet. Et là aussi nous plus que extension aussi solliciter encore une fois pour nous appeler Hein, euh, quitte à même mettre sur pied un programme spécial pour Tianaba afin de renforcer les voies internes et de Tianaba moderniser davantage parce qu'il faudrait le rappeler aussi le président de la République que le programme de modernisation des cités religieuses et Tianaba en fait partie des plus importantes cités religieuses de ce pays le président de la République son national a fait fait bu de jëlee a bureau chargé des affaires religieuses il va créer une direction boo xam ne bi chargé des affaires religieuses et vraiment yaakaar naa ne cette direction a dina jël en charge toutes les préoccupations de la cité religieuse foofu aussi li ñuy sàpp rek mooy si kilifa yi ñu ñaanal ñu ñaanal ko ba ni nga xam ne moom la yéene si kër gi suñu borom defal mu mottali ko parce que yéeneem si kër gi boo leen buñ ko waxee buñ ko ñëpp xam nañ yéene yi nga xam ne moom la am si kër diine yi te mënoo wax këru diine yi te tuddoo si Thiénaba loolu vraiment ñu ngi koy rassurer euh, comité d'organisation bi

parce que le préfet département a tenu CDD, après lui, il y aura un CRD euh, qui sera présidé par M. le gouverneur de la région, avant la réunion nationale, le ministre de l'Intérieur, mon moquet, présidé. Et moment bon, c'est du ministre du arbitrage, de eu une satisfaction sur l'état de l'université, mon bougné, de apporter des solutions. Mais dans, globalement, il faut le dire, le comité d'organisation a une satisfaction pour par si a est passée. Et là aussi, nous remercier le gouvernement mais nous ñuy sàkku rek nag muy principale préoccupation muy problème ndox bi bien que reconnaître nañ effort yi nga xamné ñank ci def ay changement de pompe et autres mais véritablement li ñu bëgg un forage vraiment moderne d'une très grande capacité capable de prendre en charge toutes les préoccupations de la cité religieuse et environ Donc, le globalement nous avons ñu En France, encore une fois euh, voilà comme je le disais tantôt on était réunis ce matin pour euh, préparer la 145e édition du GAMU annuel de Tianaba, euh, cité religieuse fondée par le vénéré Mam Amari Daksek, qui a contribué au rayonnement de l'islam dans ce pays. Ça a été l'occasion pour nous de passer en revue toutes les préoccupations du comité d'organisation, dont les plus cruciales hein, étaient liées à l'eau, hein, à la santé à l'assainissement, mais également à la sécurité. Et les services présents ont pris des engagements afin d'apporter des réponses appropriées à toutes ces préoccupations. C'est l'occasion pour nous de les remercier pour leur engagement, mais également les exhorter à faire mieux et plus. Parce que c'est ça ce que le président attend de nous. Je le rappelle, un service de service, sa mission, c'est d'assurer un service public. On est là pour les populations. On doit tout faire pour satisfaire effectivement leurs besoins, les accompagner afin que le, pays puisse effectivement aller de l'avant. Je le rappelle, le président de la République a une oreille très attentive à l'endroit des familles religieuses. C'est l'occasion pour nous de solliciter les prières des vénérés religieux qui sont là, en premier chef le Khalif général Mam euh, Hassan Sek, et pour qu'ensemble, euh, pour que toute la famille de Mam Hassan Sek puisse formuler des prières, surtout des voeux de réussite pour son excellence, Monsieur le Président de la République, à la tête de ce pays. Parce que aussi, il faut le dire, si le Président réussit, c'est le Sénégal qui en gagne. Maintenant, on ne le souhaite pas. S'il y a autre chose, ce sera autre chose. Mais donc, prions, accompagnons le Président, effectivement, dans son projet de développer le Sénégal et que nous tous aussi, nous puissions changer de comportement pour qu'effectivement, les objectifs assignés effectivement par le chef de l'État, on puisse les atteindre ensemble. Voilà donc... Le, problème de l'eau vous préoccupé. Oui, le problème de l'eau, une, euh, je l'ai dit tantôt, c'est la principale préoccupation. Mm-hmm. Hein, parce qu'il faut le dire, depuis très longtemps, bon, il y a des solutions qui ont été apportées, mais c'est des solutions structurelles, et ça, conjoncturelles. Et j'avoue que ces solutions-là ne peuvent pas perdurer. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement trouver une solution conjoncturelle et structurelle. Et pour cela, je pense que l'État du Sénégal avait entamé depuis l'année dernière la construction d'un nouveau forum d'une très grande capacité d'un débit de 200 m3 l'heure et qui sera accompagné d'un château d'eau d'une capacité de 500 m3. Et le directeur de l'OFOR qui était venu l'année dernière en visite au Khalid avait tenu un point de presse pour rassurer les, les, et l'ensemble de la population de Tianaba que les travaux allaient euh, terminer avant le Gamou. À défaut, euh, le réseau serait connecté au nouveau forage en attendant que le château d'eau puisse être terminé. Mais malheureusement, depuis des mois, les travaux sont à l'arrêt et on n'a aucune explication par rapport à cela. C'est l'occasion pour nous vraiment de lancer un appel aux nouvelles autorités pour que cette affaire-là soit suivie afin que Tianaba puisse effectivement euh, euh, être ravitaillé correctement en, en nous. Voilà donc de manière succincte effectivement, ce qui nous avait réunis. Et j'ai l'occasion de remercier la presse hein, pour leur présence, leur accompagnement, mais également remercier effectivement le coordinateur et ses collaborateurs pour euh, la franche collaboration effectivement qui a eu lieu entre nous euh, pour l'organisation de, ce grand événement religieux. Encore une fois, nous remercions tout le monde. et prions pour que le waaw euh, d' abord maa ngi wax euh, asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu euh, di nuyu kilifa yi Sénégal bi yëpp di ko jaareel ci suñu sëriñ Baye Assane Seck di xalif généralu Thiénaba di nuyu autorité yi. di ko jaare ci sous-préfet nga xamante ni moo fi nekk ah defal ñu suñu CRD comité euh, local de développement euh, ci jàmm ak salaam ci ak dal ci ak tey euh, di nuyu itam ñi nga xamante ni ñooy waa comité d'organisation bi ñu àndal préparé lii di ko waxtaan ci génn problème yi

di gàmm goo xamante ni nag gàmm mawlud ci la Tiwaawan di def kilifa diine yu bëri dañ ciy def ñoom itam seen cérémonie gàmm ah teel na ñoo jóg nag teel a jóg bi pour mën a euh, appréhender maanaam pour mën a jekku pour mën a doxal ni ñu ko bëggee programme bi ñu tëral ndax programme bi ñu tëral programme bu yaatu la programme bu laaj ay waxtaan la programme bu laaj ay taxawaay la programme yooyu nag euh, boo ko bëggee doxal ni nga ko bëggee fokk nga teel a jóg loolu moo tax ñu téela a en plus euh, dañoo nekk ci euh, Sénégal fi ne dafa nekk ci beneen situation boo xamante ni régime bu bees moo fi nekk ay nit yoo xamante ni ñoom it ñoo ñëw yor état bi ñu teg

Euh, Diomaye Faye ah ci wóolu teef giñ ko wóolu jox ko réew mi ci ni muy doxale fi ne waaye itam ci cër yi mu jox kilifa diine yi nga xamante ni ba léegi ni muy doxee nee na day def ab direction nee na jël na ay mesures yu bëri yoo xamante ni kilifay diine yi ak njaboot seeni njaboot ñëpp ànd nañ ci di ko souhaité moom Euh, ni mu doxal ak premier ministre am ak gouvernement ah yal na leen yàlla jàppale. jàppale Sénégal ah loolu moo tax ñu teel a jóg mën a waxtaan ak ñoom ba bu ñu ci yeggee jàmm ak salaam ñu man a organiser normal suñu gàmm. Euh, gis nañu rafetlu nañu xayma bilan daaw bi. Euh, ndax ma mënees na wax li ñu tàmbali dara dina xel ko. waaw rafetlu nañu bilan yi passé yu daaw yi ak yu daaw jéeg yi. bi yoon itam bëgg ko eh, xel mu bëgg ko tàmbali bëgg ko yeggale ci jàmm ak salaam moo tax ñu teel a jóg <clears throat> teel a jóg boobu nag dinañu permettre suñu programme yi nga xamante ni rëccoon nañu daaw ak yi nga xamante ni bëgg nañ ko corriger dinañ am temps pour defar loolu dina permettre ñu gën a xam ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi fi nekk actuellement man leen a mala mën a waxtaan ak ñoom dina permettre ñu mën a waxtaan ak taalibe yi ndax it dimbal ci sa loxo eh, eh, ci ci na tàmbale ci sa bopp dañoo bëgg ñun ci suñu bopp ñu dimbali suñu bopp ak suñu ak taalibe yi ak kilifa yi bu ñu demee ci autorité yi lu ñu jàppale ñu boole ko moom bu ko defee ñu mën a def gàmm bu normal loolu moo tax nde am nañ ci yaakaar bu baax a baax buñ teeloon a yeexoon a jóg dinañu dañuy parax paraxee ndax eh, dans tous les dinañ gàmm waaye nag teel koo jóg teel ko préparé

waaw yooyu euh, boo ko gisee itam euh, passation bi jaar digg après élect euh, régime bi nekkoon avant ci gàmmu daaw ak ren la donc fokk ñiy ñëw jël seen temps fokk ñiy ñëw xool fokk ñi ko yoroon itam rendre compte fokk ñu def ay évaluation loolu moo tax temps dara am pour mën a reprendre pour mën a faire une bonne continuité fokk nga xam li fi nekkoon lan la loolu kon moo tax ñu jàpp ni li nga xamante ne amoon nañ ko waxal nañ ko muy forage bi dinañ ko continuer temps dara am na prévision yi ñu defoon élection yi tax na mun la continuer à cent pour cent waaye am nañu yaakaar ni buñ jokkoo ak kilifa yi ah dinañu defal forage bi ni ko bëggee woon ndax forage bu mu ci ëpp ayib la ñu wax ah muy ay 200 cent mètres cubes ay 500 cent mètres euh, cubes euh, deux cent mètres cubes heure pompe yu mel noonu ak 500 ay forage boo xamante ni mën naa am 500 mètres cube de volume yu mel noonu ah boo ko amee mënut a gaaw waaye nag bu ñu waxtaanee ak kilifa yi ak ñoom engagement bi ñu def ak taxawaay yi ñu wax ak itam cër bi ñu jox kilifa yi diine yi am naa yaakaar ni ndox dina am xaj na nag euh, du tee nag ñu ñu jël suñu mesure ndax dañoo war a jël suñu mesure moo tax ñu teel a jox mesure yooyu mooy. nit ñi nga xamante ni ñoo fi nekk jël seen i euh, euh, defar seen i matuwaay seen i kër ñu defar ko seeni i euh, réservoir yi ñu defar leen defar suñu forage yi ñu am existé déjà ba nga xamante ni ah bu fekkente ni li ñu bëgg ci ndox amuñu ko ci forage boobu du tee ñu mën a am lu ñu mën a jàpp ànd aussi ak appui bi nga xamante ni moom lañ daan am mooy ay camion citerne ak wa sapeur pompier ak wa eaux et forêt aussi ak wa eaux et forêt dañuy jàppale baax ci ndox donc bari nañ trop ay sources yo xamante ne euh mo ñu jappalé ñoo ñooñu yaakaar nañ leen ba buñ ci yeggé jàmm ak salaam dinañ mëna doxal correctement suñu gàmmu gi. rapidement régional François monsieur le président Abdou Niang coordinateur euh, du du gamu de Thiénaba la 145e édition. Euh, c'est pour bientôt, dans trois mois et demi, euh, justement, euh, Vous vous êtes levé très tôt, pourquoi Et qu'est-ce qui sera un peu la, particularité de l'édition de 2024 Bon, tout d'abord, je donne mes sincères salutations et remerciements au Khalif général de Tianama, Hassan Sek. Remercier également les autorités de l'État, à commencer par le président Bassirou Diomaye son gouvernement, son premier ministre, ses ministres, le gouverneur de la région de Thiès, euh, le préfet, le sous-préfet ici présent, qui a bien euh, diligenté, qui a bien organisé la séance d'aujourd'hui, le comité local de développement. remercier également euh, mes collaborateurs du comité d'organisation, mais remercier euh, tous les chefs de service qui sont venus, qui, se sont, qui ont bien pris des engagements. Remercier la presse, euh, en, un mot, remercier tous ceux qui ont participé à cette réunion euh, du comité local de développement pour les la préparation du GAMU, 145e GAMU de Tianaba. C'est vrai, nous sommes levés un peu tôt, c'est pour mieux organiser, c'est pour mieux se préparer, c'est pour avoir le temps de faire correctement euh, l'organisation. Nous sommes levés un peu tôt pour avoir également le temps de connaître nos partenaires, de connaître les, euh, les autorités qui sont nouvellement venues et qui demandent euh, un peu de temps, qui demandent d'être rencontrés, qui demandent de connaître ce qui se passe, qui demandent de pouvoir avoir le temps d'agir et donc de nous appuyer sur le Gabon. Il faut donc se lever un peu tôt, se préparer, sinon euh, on peut avoir des surprises. L'organisation s'est bien passée. La réunion d'aujourd'hui a été bien présidée par le sous-préfet Babacar Wad. Nous le remercions euh, au passage. Ce n'est pas la première fois. Toujours, il œuvre pour Tchanaba. Toujours, il organise correctement les réunions il fait correctement son travail en compagnie euh, de son adjoint, en compagnie aussi de tout son personnel des services de l'État. Nous, donc, nous les remercions. Nous espérons que euh, euh, le gamme de prochain se déroulera correctement. Et si nous espérons même mieux, parce que nous nous sommes levés un peu plus tôt que d'habitude il y a également, également évidemment des, des points sombres, des points à réfléchir. C'est le cas de, l'eau. L'eau constitue vraiment euh, une casse-tête ici euh, à, à Nous n'avons pas assez d'eau, nous avons des difficultés. Et ça commence par le réseau même. Il faudrait que le réseau de Tcheraba, qui est un réseau qui, qui, qui qui, date datent des, dizaines d'années, qu'on puisse les renouveler. la nappe phréatique, avec nos forages qui existants, ne, donne pas suffisamment d'eau. Donc il nous faut des forages nouvellement, des forages modernes. Nous avons la promesse, nous avions même mis euh, euh, euh, notre la pierre, la pose de la première pierre, tout avait commencé. Maintenant, ça reste à les rappeler pour que ce qui a été déjà fait puisse continuer. L'État est une continuation, comme vous l'avez dit. Mais également, nous avons besoin aussi des points euh, à réfléchir sur la santé. Nous avons besoin d'un centre de santé parce que la population de Thiénaba dépasse maintenant les limites des postes de santé. Nous avons besoin également une résidence, de, parce que le, président de la République, à l'image des autres sites religieux, il y a des résidences euh, pour accueillir les pèlerins, pour accueillir les autorités. Nous avons commencé cette résidence à, euh, à mais ça n'a pas encore abouti. donc tout ça, ce sont des points qui nous pousse à commencer tôt, à aller rencontrer les autorités et les tendre la main, et aussi à se préparer nous-mêmes en tant que talibé à rencontrer les d'ailleurs et, euh, à, faire un plan, développer en tout cas euh, l'organisation qui nous attend pour août 2024, euh, septembre 2024. L'espoir est permis. L'espoir est permis. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبلغ قدرات العبدين كونهم في تأتي سيادة لبن الماء في تلك الصبر كما تسلم كلام سيد حسن ويخيم أيوة الله لتأتي أكتر خلف الكلام أيكوت المعرض حلم داكسك أيكوت أي مغلب كان في كلام سنجي وجوسك مريان يخيش الموش المكتب المسلم بالله فايتي وفي تيوز على يوم تبس على البطل فايتي وفي تيوز من جبوت مع أحمد باقي سر زكي دي وهم السرين بيمون من نينكو سنتل سوبر بعض بعض كبات باملا تعليم تخوي جم أكتئب

kenn ku ne bi ñu dénkee ab ñu ngi ba pare moo la tànnaat am commission bu mu la dénk nga yoral ko ko te am ci itte ak bëgg-bëgg waaye di sant chef sa service yi fi nekkoon yëpp tam ndax itam ñëpp am cant ndax itam ku fi teew ku ne tam serse nu mu baaxee ak bëgg nu mu doxee rek moo la tax a teew kon sëriñ bi dina sant na ñëpp gërëm na ñëpp jaajëfal na ñëpp ñaanal na ñëpp ñu am gàmmu jàmm ak salaam ba di ko waxtaani waat eh, gàmm nag buñ koy waajal تسلاي لا تي اوب موي لي رك غيناو نيان موي نياكو بوك واختاني كو ناخ من مانا على كل حال بن بوغي مو ريسيت نياكو بوك بن كاي واختاني سير كنيكو نا لا جاي سان سان اك مان مانام ني جاك يال كو كو مانا كو دوخ لول لا سيرن بي واخون ني كون نين سونو بروميير جيب نين تيو في جي كانوم سو بروفيل واجال كام كي واختاني كو واي ييب لو خامي تنك نين كو في جي اي بوسوي لول لا سيرن بي نانا سيت لا با خامي بوبولاسيون جالا با سوخلا نكو يالا ناي pèlerins yi fay ñëw pour gàmmu te mënta ñàkk ci ñoom document bu ne bu ñu ko tënkee toujours dañ koy tëj ci kanam wala sous-préfet gunge ko ci nag ànd ak moom ak le coordonnateur ñu dem kër préfet département suñ fa génnee dem kër gouverneur suñ fa génnee dem ministère de l'intérieur kon ñu ngi profité di sant préfet département di sant gouverneur sant ministre de l'intérieur waaye di sant sunu président de la république bi ci tout sëñ Thierno Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane sëñ bi laa ngi sëñ baa ngi sant ci turu njabootu sëñ ma Ahmad Ndaak yëpp waaye ñu ngi beesal sunu yaakaar tam ci gouvernement bees bi ndax sëñ bi neen ni mu leen gungee woon ci ñaan bi nga xam ni réew mi am na jafe ba lépp daal ñaan googu ci tànkam ndax moom loolu mooy loolu loolu mooy itteem loolu mooy liggéeyam fi mu toll ñaan réew mi daal ñaan réew mi am sa sa xel nee na mi ngi leen di ñaanal réew mi daal waaye mi ngi bëgg daal ñu gën koo taxaw ci gam gi xëy mooy cent quarante cinq cent quarantième édition bi nga xam ne Euh, mooy gàmmu maam Ahmad Ndak gi gën a mag ndax mag ñi tam Thiénaba mooy gàmm gi mooy gàmm gi gën a mag ci Thiénaba mooy bisu diine ji mooy bisu tarixa bi mooy bisu mag ndax mag ñi li ñu am lépp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko jëlee waaye bis boobu itam lañu ci la ñuy dajale li am lépp itam delloo ko yonent bi sallallahu ndax itam mbir ne dafa am loo xam bis boo xam dañ koy manifesté wu wane sa sa bopp ak sa ngëm ak sa bëgg-bëgg ak sa pas-pas ak sa itti ak sa courage bisu gàmm nag ci la ñuy dajale ànd ak taalibe yëpp ak muxaddam yëpp wala suñu xuraas ak suñu pas-pas ak suñu jaayante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nattukaay bi gën a mag ci jullit yëpp sallallahu alayhi wa sallam ñun suñu lépp suñu lépp ci lenn ci yonent bi rek lañ koy natt suñu lépp yàlla ci suñu lenn ci yonent bi la koy natt te alxuraan dafa wax ne wa in kuntum tuhibbuuna llaaha fattabi'uuni yuhbibkumullaah su ngeen bëggee yàlla bëgg leen wal leen ko seen bëggal ci yonent bi ak seen pas-pas ak seen it ak seen taxawaay loolu moo waral mag ñi kenn ku ne njaboot ga nga jabootee da ngay sàkk bis te bis bu ko mooy bis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam juddoo nga day la ñëw yëpp ni ko maa ngi nii maa ngi njaboot gi di feddali suñu pas-pas ak suñu yaakaar ak suñu bëgg-bëgg ak suñu wóolu ci yow ibnu téere bi ñuy jàng sax dañu maxawatuhoo diinun wa sakka un wa xaliixatun maanaam bëgg gi ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu may ñu am diine ju sell moo ñu may am am jikko yoo xam ne nii crise d'autorité yi amoon yëpp ci bis boobu la ko yàlla di dindi moo ñu may ñu am ak sell kon mag ñi bis boobu la ñuy woote kon sëriñ bi nee na bis boobu mi ngi ci woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw mbooleem ku yaakaar Seexu Thiénaba fu mu ne hmm, mu ngi lay woo ci bis bi sëñ Ibrahima nag amoon na génn góor goo xëy daf daan wax ni moom gàmmu seem damaa neex ndax day indi xale yëpp te nit ki fu mu gëm place ba mu gëm di fa dem da koy miinal ñamu jaboote ndax ëllëg ñu mën ko miin loolu dama ci occasion dama ko waaye am nañu avantage yu bari la yëpp di wax ne daal préfet bis baa ngi nii sëriñ bi teg na ko sa loxo yaa coordinateur ñun ñu ngi ànd di leen gunge Thiénaba nag mosuñu koo seetaan ci dal daal waaye ñu bépp mat mbattu xam naa xëy du ñu xam mbattu waaye bépp nattukaay daal bu ñu daan nattale Thiénaba bëgg nañ ko yokk bëgg nañ yokk ndax Thiénaba yokk na dëkk bi yokk na yokk na tarixa bi yokk na te sunu maam Talla Seck daal wax ni boo yaakaar mbir mu yokk dangay yokk sa yaakaar te bëgg nañ taal bi bu dugg Thiénaba rek boo fi duggee sa yaakaar yokk ci biir ak ci biti kon ñu ngi gërëm presse locale bi nga xam ne ñoo ñuy gunge toujours maa ngi wax léegi rek ni lépp lu mos a ñàkk ci télé itam mosuñu ko jàmbal ndax tam mi ngi siiw euh, Thiénaba TV Thiénaba 24 Samsu TV euh, Gindiku tubaarkàlla sunu frère Babacar Ndaw comme ni mu ko waxee rek même même laytul xadar dañu ànd ak ñun ak wal fajri ñu ngi leen di gërëm baax di sant seen seen TV wax dëgg yàlla bogaan mosuñu gis sax mais ak mu jot volontairement day ñëw def direct Thiénaba gàmmu Thiénaba loolu tam ñu ngi koy bëgg ci RTS ndax RTS nag ñun moom la moom kon lu nu waaye defal rek ci moom lañ ko gën a bëgg donte bu ñëwul tam foog mu siiw tam ñu ngi koy lancé di wax Pape Alé Niang ko bëgg nañ ko ci réseau bu bees bi ñu seddaat Thiénaba ci kuréel yu mag yi ñu sedd yëpp ndax Thiénaba dëkku mag la ñu ngi sant képp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di sant Axma nag bu baax taxawaayam di sant ñëpp asalaamaaleykum.